bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ñuy seetaan ci seen sit bi ñuy wax 24 actu siwaat nañ seen émission bi nuy wax taxaw seetlu taxaw seetlu nag ñu leen koy amale fii ci sit bi ngir fas yéene lépp loo xamante ni xew-xew la ñu war cee taxaw wax ci dinañ ànd ak yéen xam ngeen ne fan yi ñu nekk nag ginnaaw bu nu sante yàlla julli ci yonentam bu tedd bi di ñaanal Serigne Mountakha mu yàgg fi lool te wér di ñaanal Alhaaji Abdul Fatah mu Serigne Fallou sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko euh, ñu fas yéene waxtaane xam ngeen ne ñu ngi ci catal koor gi ci fan yu mujj yi fan yu mujj yooyu nag day fan yu yu mujj yoo xamante ni dafa làmboo ay ngëneel yu bare bare bare bare bare latul xadar gi nga xam ne ci lañu mooy guddi gi gën ci guddi yi ci la ci la nekk ci fan yu mujj yooyu fan yu mujj yooyu nag day fan yoo xamante ni ni ko mag ñi tudde woon mooy fanu laxasaay laxasuwaay maanaam nit koo xam ne da jëmoon ci xare di dem ba ñëpp jàpp ne da ngaa war a toog noppalu nga takkaat sa laxasaay loola mooy fan yu mujj yi fan la yoo xamante ni fan yu mujj la ci ñaan ñaan jullit bokk na ci li gën a doon ngànnaayam mooy ñaan ñaan nag yàlla mi nga xam ne dafa tabe ba nga xam ne wax ne képp koo xamante ni ñaanu ko mu mere la loolu jàpp naa ne sëñ bi kenn amu ko maanaam benn nit bu àgg ci baax goo xamante ni boo ko ñaanul mu mere la amul moom kay danga koy ñaan mu may la nga ñàkk ko wala yenn saay mu tibb tibb jëkki-jëkki may la waaye àgg ci ne démb da nga fee ñëw ñaanoo ma wala da nga maa ñaanut wala nangam dama laa mere looloo tax mu mere la amul yàlla nag mooy àgg ci moom saa boo demee ba ñaanoo ko mu mere la kon tabeeg yàlla kenn yoru ko fukki fan yu mujj yi nag laylatul xadar nekk ci ci guddi gi muy guddi goo xamante ni borom xam-xam yi nee nañ moo gën juróom-ñett fukki at ak ñaar te guddi googu benn yoon lay ñëw ci at mi benn yoon lay ñëw ci at mi yonente bi nag li taxoon mu wax dafa waxoon ne bis bu tóol lay doon ci guddi yi ñaar fukk ak benn ñaar fukk ak ñett ñaar fukk ak juróom ñaar fukk ak juróom ñaar ñaar fukk ak juróom ñeent yooyu lay doon waaye ànd ak loolu lépp li ci yonante bi digle woon mooy ñu ñaan yonante bi sallallahu alayhi wasallam soxna Aysa wax na ko ne ko waaye guddi googu su ñëwee su ma fekkee lan laa koy mu ne ko allahuma inni tuhibbul afwa fa'fu anni da nga ñaan yàlla ndax yàlla jéggale kon bu mag a mag a mag la guddi googu tamit danoo wax ne guddi la goo xam ne buñ la waxoon ne la at mi genn guddi yoon la fi ñëw war nga guddi at mépp nga toog di ko màggal maanaam saa bu guddi ñëwee xam nga guddi gi euh, Thierno tey bu fekkoon dañ laa wax ne la président yii fi jaar ak nangam dañ laa wax ne la yin doon wut yëpp dañ leen a wax ne fexe leen ba guddi gi bu mu leen raw fexe leen ba semaine bi bu leen raw jàpp naa ne lépp lu nu am ci àdduna danañ ko def ngir te ñoom lay tax du leen raw mooy falu ngir àdduna yow mi nga xam ne da bëgg sa àdduna baax sa àllaaxira baax te guddi gii di saa boo ko màggalee dund ko tasee guddi gi sa àdduna baax na sa àllaaxira baax na guddi googu nag ni nga koy dundale mooy jàng alxuraan salaatu ala nabi bernde istighfar maanaam dundal ak mbokk sax ki nga du ki nga dendal ci koñ bi nga yëg ne tey amul dépasse wala même yëg nga ne amul dépasse war ngaa dem jokk mbokk na war nga dem ci wetam nga ne ko sëñ bi mën ko damaa ñëwoon di la ndokkeel di la siyaare di ñaan guddi gi yàlla nañ ko yàlla defal damaa ñëwoon kat weer wi nga xam ne mi ngi nii di tàggoo te weer la gan gu tedd goom duñ ko amati maa ngi la ciy ndokkeel di wax na gan gii kat mënatuñ ko am nan profitoo ci teral ko kon mu doon gan goo xamante ni yow danga nga ciy teral te weer wi moo yeyoo loolu weer wi waroo toog mukk mukk weeru koor jiw ba jàll dogaloo ay nit war nga lu mu néew néew yenn saa nga dindi ñetti téeméer gis genn góor wala ki ne ko sëñ bi lii kat dama la koo jox ngir doge yenn saa nga jënd ñeenti kilos yu suukar ne sëñ bi lii kat dama la koo jox yenn saa nga fekk koo xamante ni ku néew doole la nga ne nàngam yenn saa nga togg togg ku baax koo xamante ni ku neex la nga jox ko sa mbokkam jullit ne ko man kat tey lii dama koo togg ngir jox la ko ngir nga dunde la ko sa njaboot ngir nga barkeeloo ko ci bis bi xolam mbégte moomu muy am. te moom muy am mu ko rëy gën a rëy la suñu borom di am soxna Aysa nee na nett leen nee na am na benn jigéen boo xamante ni ñaari doomam la àndal ñëw ci kër yonante bi nee na bi mu ñëwee ci kër yonante bi salaa salaam ñëw dikk fekk fa soxna Aysa rek ne ko waaw soxna si man de démb ba léegi ñaari fan a ngi ni lekkuma naanuma sama ñaari doom yi lekkunu mu ne ko ah mu ne ko waaw mu ne ko ah xiif nan de soxna Aysa ñëw wër kër yonante bi salaa salaam dugg bi mu duggee xool xool gisul lu ñetti tàndarma mu dikk daal di génne ñetti tàndarma dikk ne ko soxna si lii de moo fi nekk ñetti tàndarma yi soxna si jël benn tàndarma bi jox benn doom bi jëlaat bi ci des jox ko benn doom bi daal di tàmbali di dagg nii di bëgg a lekk fekk na ñaari doom yi ku ci nekk lekk nga sa tàndarma ba di ko xool mu daggaat ñaari mu daggaat tàndarma bi mu waroon a lekk jël doom ji jox ko jëlaat doom ji jox ko soxna Aysa nee na bi ma dikkee ma nettali yonante bi sallallahu alayhi wasallam loolu soxna Aysa ne ma yonante bi nee na ma kooko de xamal ne am na àjjana ca loolee mu def waa yow mi nga xam ne yow da ngaa dikk rek ñu jox la nga joxaat ay nit ak ka joxe loola soxna Aysa lan la am ca guddi googu ak lan la am ci bis boobu kër yonante bi ñetti tàndarma rek a fa nekk te Aysa daana ko wax daana wax ne ñetti ñetti ñetti ñuul rek la ñuy am yonante bi daanan toog ñetti weer ñetti ñuul la ñuy dunde mooy ndox tàndarma moom la ñuy ci ñetti weer yooyu mbokk yi guddi gii nga xam ne mooy guddi yi mujj yi di guddi goo xamante ni bu daan dem sëñ Tuubaa day mel ni ku mer day wax ne gan goo xamante ni mi ngi dem di mer ci gan gi ndax dem gi nga xam ne gan gi da koy dem te du ko gaaw a gisaat moo tax mbokk yi koor buy jeex kenn du wax ne ah koor gi de léegi mu jeex koor gi de jeex na macha allah koor gi kay li ci des bëreetut mi ngi mel ni gan gu ñëwoon sa kër dikk di gane si nga naa gan gi de mi ngi bëgg a dem gan gi de mi ngi bëgga dem ni ko waa Touba di defee da ngay dégg sa màggal jotee ñu naa la ana gan ñi ñibbeegunu waaye ana moom mbokk mi sëñ bi nga am gan ba noppi naa gan ñi ñibbeegunu ko gan ndax toogaayam dina neex ci kër ga toog ba ci yàgg nga ne gan gi gan ñi ñibbeegunu wala gan ñi ñi ngi wàññeeku gan danga ko war a fonk war la nga gën a baaxale ci sa kër su dikkee nga jox ko ko lal ba gën a baax nga jox ko ko la ngay lekk lu gën a baax nga jox ko ko segam gan googu moo yeeyoo loolu surtout gan gi nga xam ne ganu koor la te yonante bi salaahu salaam nee na ñett ñii kenn mësu koo ànd wala ñett la loo xamante ni mësta dikkal nit te amu ci aw yiw nee na weeru koor dikkal la te amoo ngërëmal weeru koor nga nekk ak sa ñaari waajur ñu ànd ak yow te amoo seeni ngërëm weeru koor dem ba weeru koor si amoo ci ngërëm nee na kon yow sa àdduna ak sa dund dund gu naas sax la na am na ñoo xamante ni buñ sañoon seen waajur dundaat am na ñoo xam buñ sañoon seen baay dundaat te moo ne dundoon na ñoom lu mu néew néew ay fan ngërëm loola nga fexe ba dem ba sa baay gërëmu la sa yaay gërëmu la dara jëru ko nga dundoog weeru koor weeru koor ni mu toll nga dundak moom ba weeru koor jeex te weeru koor gërëmul weeru koor ëllëg da ngay taxaw ñu isaab la ba nar laa yóbbu sawar weeru koor daal di dikk daal na ah sun borom kii de daana ma wóor bëccëg yi de bëccëg yi daana ma wóor dama bëgg nga tin ma ci bañ koo yóbbu sawara ñu daal di dikk nees tuuti nar laa woo mataat yóbbu alxuraan dikk ne la ah kii kat daana ma jàng ci guddi gi daana ma naafile daana ma def lu nekk sun borom teg ma tin ci kii kon loola li muy tekk mooy weeru koor jàng alxuraan la ak salaatu ala nabi ak jàng ak istixfaar ak baalante kon daal weeru koor sëñ bi mujj gi kenn mënu koo jeexal waaye nag li ci am solo mooy ñu ngi ñaan yàlla fekkaloonu mujj weeru koor te yàlla fekkaloonu yeneen koor liñ ci jaamu yàlla néew ak a bari yàlla na ko yàlla denc yàlla na nu ko yàlla fulal te dencal na ko te defal na ko ci fa muy defal gaay yu baax yi la muy dencal gaay yu baax ya mu dencal nu fa te koor gi yàlla bu mu doon suñu mujj koor liñ ci jëf yàlla na ko yàlla ful yàlla na ko yàlla nangul boppam moom mi xam li sell ak li sellut ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di baalu àq ñëpp di leen jox daje ci yeneen i jataay asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu